bii nuy wax ni mbooloo la moo xam ne xam naa ñëpp ñëwagun sax waaye ñëpp dégg nañ message bi ndax sëñ bi daf ne bu ñu àndandoo rek yëkkatendoo lu ñu rek loolu di dàq waaw loolu daal xam naa soxna jaara moo ko tàmbalee tàmbalee rek indiwaat

mbir moo gis rek am na lu tax nu nu amal ko dafa mel ni balaa ñuy wax fédération bi dañuy wax fondation bi ndax bi fondation bi amee rek nu xam ne fondation bi war na am war na am fond ci la daayira yi jokk di collecté di joxe àddiyey maam jaara waaye di ko jaarale ci carte yooyu di wecceeku ñeenti téeméer daayira bu ne war a dajale sa mbooloo di leen bind kenn par kenn ñuy am carte ñu di ci fondation bi kon loolu ci la ñuy dox di ko dox ba mu nekk benn daayira ñaari daayira ñeenti daayira ba mu yàgg mu doon ay daayira yu bëri daayira yu bëri yooyu nag mooy waral ñu dem ba mu yàgg ñu fédéré leen ñu nekk benn ndax day yu bëri yoo xam ne dañoo nekk ci gox yoo xam ne yu fasandikoo la

waaye ni ma len ko waxe rek nonu lan def di def di def ba mujj gi mu genn mboro dugg ci biir rew mi waye mu genn ci biir rew mi dem bitim rew ba lolou mo waral sax legui dañuy wax waxatuñ sax federation dañuy wax confederation ndax li tax mu nek confederation mboro gi nga xamne fa lañ ko deul rek lu tollu ñeen fukki daayira ak juroom ña nga fa tënku ci benn fédération bo xamne soxna aram ñang moko jité waye bo génné mboro mbooro tuuti rek ñew tundu kadior bi ci biir bo ñewé ba fu ñuy wax xombal fofu dang fay fekk fédération bo xamne ku ñuy wax soxna khadim bay moko jité momit mu am fa lo xamne toll na ci fanweeri daayira ak juroom ñaar waye bo démé ba ciestam dang fay fekk ku ñuy wax soxna astu moom itam mu mu boot lu toll ci ñaar fukki daayira ak juróom moom it moo nekk wàll googu waaye boo jàllee ba mbuur itam da nga fay fekk ku ñuy wax soxna dëggeen Wàdd moom it mu jiite fa fédération boo xam ne toll na ci fanweeri daayira ak lu topp waaye noonu tam lañuy def boo duggee Dakar boo demee yëmbal ak li nekk ci banlieue bi soxna Ami Mbàkke moom sëñ Abdourahman moom sëñ ma Mandumbe moom itam moo fa nekk jiite ko fédération boo xam ne moom it toll na ci fanweeri daayira ak juróom-ñett waaye boo duggee ba biir Dakar itam Castor am na soxna suñuy wax soxna Ami Jaxumpa moom itam moo fa nekk yor fédération boo xam ne toll na ci fukki daayira ak juróom waaye boo demee Kaolack itam da nga fekk soxna Awa Ngom moom itam dafa jiite fédération boo xam ne toll na ci juróom-ñetti daayira la fa am waaye boo ñëwee fii ci Poroxaan soxna Dieynaba Samb moom itam biir commune Porokhane bi ak li ko wër jiite na fi fédération boo xam ne toll na ci fukki daayira ak ñaar waaye noonu ngay demee Touba tam fekk fa soxna màgget Dieye moom tam mu jiite fa fédération boo xam ne dafa toll ci fukki daayira ak ñeent waaye noonu ngay demee Ndar ak Dagana ak Murtani ñooñu dañ leen boole benn fédération boo xam ne soxna joor Fall moo ko jiite kon loolu yëpp dafa nekk fédération yoo xam ne ni boo ko boolee ci lay nekk confédération kon Serigne ma dina général Maam Jaara ci lii la nekk di ko liggéey te muy lu am solo loo xam ne nii nag ñépp dañ cee war a taxaw rawatina ndaw ñi ndax soxna si dan dana dana war a jëmmal li nga xam ne jëmm yi nga xam ne dañ fee nekk nga xam ne bu soxna si nekk bu fi soxna si nekkoon moo di ab liggéeyam muy ni euh, sang be waxe sang, ndax ñi nek fi ñep am nañ yene am am tout tank bo xamne dañ koy tuddé soxna jaara jébal ko ko kon soxna ci su fi néwon nit ñi diko jébal seeni doom la muy war a def ci ñom moy yar leen jangal leen alcorane ba nga xamne buñu génné fuñu dem ay model lañuy nek kon lolu nak la leen di dundal fondation bi taxawal ko ñun ñu doon ñoo xam ne ni ñun dañoo war a suuxat fondation boobu nga xam ne dañuy ñun ñoo war a remplir keesi euh, fondation bi ba nga xam ne lépp loo xam ne nii lu soxna jaara waroon na yittewoo la ci ay turandoom ñun ñi di ko def moo tax ma ne kon fédération bi fédération yi dañoo war a takkuwaat gën a laa liggéey bi ñun de fi nu féetee fépp dëkk bu nu dem wala gox bu ñu dem ak xew muñ mënta dem muy xewu bànneex wala xewu safaan fu ñu mënta dem luy suñu yitte bu xew la paree la ñuy njëkk laajte mooy ndax dëkk bi am na daayirab maam jaara wala ndax gox bi wala quartier bi am na daayirab maam jaara bu dee am na ñu laaj ko ndax jokk na ci benn fédération bu ne amul danañ ko fexe xëcc ko ba mu ñëw bokk jokk ci suñu fédération te danañ fexe it wax ko liggéey bi ni muy demee danañ fexe it ba Serigne Mbacke mi nga xam ne moom mooy mooy président moo moo jiite fédération bi danañ fexe ba mu sol dàllam dem ba ca dëkk boobu wala ca gox boobu wala ca quartier ba nu wax leen liggéeyu soxna jaara bi nan lay jaaree ba mu mën a bokk ci fédération bi di man at bu jot mu man di verser ay carte Maam yoo xam ne ñoom ñooy suuxat fondation bi te loolu bi ñu ko nattee ñun ñi nga xam ne dañ ñoo jox poste bi nga xam ne mooy coordinateur bi liy dugg ak ci fédération bi li ci li ci xew lu bëri dañ koy xam deux mille deux mille cinq ba deux mille vingt trois bii ñu nekk sëñ ma dina fédération bi mu àndal versé nañ ci cent vingt huit millions yoo xam ne versé nañ ko ci. fondation bi te mu jaaree ci carte maam jaare yi kon rek soxna si nu tënku noonu rek wàccee suñu kàddu foofu ba amaat beneen question jërëjëf. jërëjëf sëñ Modou yi am na solo lool euh, soxna Momy ginnaaw bi nga ñu leeralee euh, création wu fédération bi euh, ñu bëggoon a xam seen liggéey dëgg-dëgg nan la demee foofu ci États-Unis ndax yomb na fa par rapport ak euh, ni ñu xamee bitim réew ni mu mel ak seen euh, seen wàll par rapport ak parrainage bi nan la demee foofa exactement nuyoo waat bu baax rek te siyaare soxna Jobe Diop mee dugg léegi di rek maam nekk tam secrétaire soxna Jobe ngi lay siyaar bu baax ak soxna maam Diarra seen tamit ñi ngi ànd ne mu ngi toog ak sëñ moom yomb na yombul soo déggee na yomb na yombul mooy bëgguñu bëgg soxna jaara moo tax ñu yombal ko boole ko ci biir ndax dañoo dem ngir teraanga waaye dañoo dem tamit boole ci liggéey soxna yaay soxna jaara su soxna jaara bu ñu ko waree laajal amul mi ngi nees amul mi ngi taw amul mi ngi naaj dañuy jóg dem ji laaju ko su weer bi deewee tamit dana danañu taxaw ki nga xam ne mooy soxna ndey ndey sàll yore parrainage taxaw ak soxna asu ndaw képp koo xamante ne nii ne bokk nga ca daayira ba te bokk parrainage bi doon jël sa numéro yónnee la message ne la weer bi dee na nga yónnee am na ah, kii bu wax sel comme yéen ni ngeen wax fi Wave kenn ku nekk sel yónnee sa ah, li nga xamante ne moo nga bindu wala nga toog place ko ndax ñàkk ñàkk jot waaye lu ñàkk jot jot boole ci soxna jaar ndax xam ne soxna jaara moo fi nekk sëñ a tamit duñu ñaax bu baax a baax suy ñëw danañu mi ngi ñëw bu ñëwee danañu ànd ak moom liggéey bi fu ñu toll wax mu wax ñu fu ñu toll mu wax ñu wax ñu ko ñu bokk moom liggéey bi suñu wax sëñ Seydou Amar tamit moo yore kàttu soxna jaara yi moom tamit saa yoo xamante ne màgg gi jub si na dana indi carte yi jox ñu lu mat 1000 carte wala lu ko ëpp bu jeexee mu dolliwaat ñu jox dëkk bu nekk say carte nga ñun suñuy natt maam jaara bi dañu naan 20 dollars yi moo jëm ci carte yi 50 dollars yi mooy sa àddee maam jaara bu ko ak parrainage kon macha allah ñu ngi cee boole bu baax soxna jaara waroon naa ñàkk yomb waaye dañu koo yombal soxna jaara yombalal ñu ko ñu fas ko yéene yombal nag lool nag bu ñu woot bu ñu waree woote dinañ woote bu ñu waree wuti dinañ wuy dajeel tam ci soxna jaara woote ko dañ bàyyi loolu dem soxna jaara ngir yombal liggéey waaw te xam nañu soxna jaara yi parrainage bi ak kii bi ñoo ko war a yore te suñ ko suñ ko suñ ci deful ñu ci war a def na dina lay waar waaye ndax sëñ moom li sëñ bi wax léegi rek sëñ Moustapha Bassirou moo ñëw def dafa ñu loo xamante ne mënuñu koo am ne soxna bu fekkonte ne mi ngi ci jamono dafa waroon ku ñu ko tuddee joxo ko comme ñun ni ñu tuddee soxna moom sëñ Tuubaa jox ñu ko mu yar ñu kon noonu la war a yore xale yi den jàngal alxuraan deful noonu nag nekku fi nag sëñ Moustapha Bassirou deful noonu ñun jàpp nañu ca ñun képp koo xamante ne nii ne yaa ngi ci liggéey bi jàpp nga ca soxna Jobbee ngi nii jël na maam jaara kenn koy da ngaa ak ma ku mel ni man weer bu dee da ngay joxe sa maam jaar 30 dollars kenn ku nekk la bind nga joxe am na ñoo xam ne bu weer deewee dañu joxe li ñu am seen àddi ñu boole ko mu nekk euh, li nga xamante ne mooy maam jaare ñu ne la ko yónnee ko loolu daal la ñuy liggéey soxna si daal ba nga laajal ma leen soobee yàlla. jërëjëf soxna moom mi kon euh, Serigne Assane euh, ñu bëggoon euh, seen taxawaay dëgg-dëgg ci parrainage bi. waaw jërëjëf soxna jaara ñu ngi lay siyaare waaw parrainage bi moom comme ni ma ciy duggee rek mooy day xalaat bu mu a génn waaye li jiitu moom di base bi mooy carte yi mhm. leeraloon naa ci mu Moustapha bi mu sosoo liggéey bi. mu amoon yéene nag ndax Sëñ Moussa dafa waxoon ne la doon yéeneem dëgg mooy am lu ëpp junni maam jaare ci daara ji te kenn ku ne xamoon na ne carte yi moo yor économie bi moo yorul dundu daara ji muy carte yi nga xam ne daayira yi ñu ngi koy wecceeku ba moo taxoon sax léeg li ëpp ci liggéey bi boo xoolee ne li taxoon ñu doon limité maam jaara yi loolu dund bi tam da cee bokk te daara ju yor dundub 18 million par mois juróom fukki maam jaara juróomi téeméeri maam jaara ak juróom fukk nekk fa kon eh, te seriñ bi am na lu mu seddaloon daayira yi Seex Mamadul Muntaxa nee na daayira yi ñoo yor daara ji daayira yi ñooy jàpp ci daa ci daara ji ak soppey maam jaara yi ak defkati yi baax yépp noonu la ko Seex Mamadul Muntaxa leerale Euh, ci biir euh, parrainage bi nag li tax maanaam tey mu génn ba àdduna bépp jot ci ci yéene rek la génne ndax Cheikh Moustapha sos na loo xam ne samp ko ba bufti bi di walla dañ koy man muy continuer muy carte maam jaare wii waaye sëñ saaxa nag damay toog muy wax ne faw Cheikh Moustapha yàlla fay ko xolom fay ko lim yéene woon sëñ Isaaxa da koy wax ndax xam bëggu sëñ Moustapha Basiru ak dogoom ci liggéeyal soxna jaara ba moo tax nee na moom itam yéenay Seex Mustafaa jooju sëñ Isaaxa nee na moom rek la tëg bët ba moo taxoon mu jóg yëkkati kàddoom ngir wootee lu jëm ci ndeyi daara ndeyi daara nag buñ ko waxee mooy jël am maam jaara ca daara ja yor ab dundam noonu la ko sëñ Isaaxa leer la woon ba yaakaar naa ñu bare dégg nañ ne Espagne la njëkk a sosoo dëkk ba ma dëkk ba ma nekk man bi sax bi sëñ Isaaxa yëkkatee xalaatu prénance ñun ñoy ñi ñëk jël fukki mam jaara ci aduna bëpp sax lay wax diaspora jël nañ ko ñetti at liggéey nañ ñetti at yi ji ci njëkk ñëw Cheikh muntaha daf ne seigne moustay nañ ubbi compte jël li denc dencal mako fa laaj ko loolu Cheikh Modou muntaha wax ñu jël yi joju verse ko ci compte bi Espagne liggéey na ci parrainage ñetti at réew yi door ci dugg si diggante Amérique France Italie yenn réew yi wuy si ba bi demee ba liggéey bi mat Seex mun Muntaxa dañu woowaat nañu kat la ma denc lu woon léegi dund fukki weer ak ñaar mi ngi fi loolu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa leeral euh, bi mu ñu ko leeralee fii nuy wax ni ñun Espagne egg nañ ci téeméeri parrainage daanaka egg nañ ci téeméeri prenance yoo xam ne maam jaara bu ci nekk ñu ngi ko daan jëlal ndax dañu ne woon un euro bu ñu ko defee muy 30 euro dana mën a nekk maam jaara bu ci nekk de quarante mille par mois par at euh, ba fii ñuy wax ni jël nañ lu toll ci téeméeri maam jaara yoo xam amagul nañ ko te ñu ngi wéyal di soññee waaye nag liy dëgg dëgg dëgg dëgg xalaat bi dëgg ak objectif ak initiative bi taxoon sëñ Isaaxa taxawal ko mooy daayira yi soxna jaare yi ndax fii ñuy wax ni bu nee daayira maam jaare yi egg nañ ci 3000 daayira 3000 daayira maam jaare ñi ngi fi te daara ji bi ko Cheikh Moustapha sosé ak léegi booy xool 500 yi 550 ci foofu la ñuy toll Cheikh Moustapha la yéenam mooy ñu egg ci 1000 daayira 1000 maam jaare ne ci daara ji moo tax sañu saaxa ne kon liggéey liggéey liggéeykati daayira yi maam jaare yi ak soppe yi ñun ñëpp ñuy gën a dawale suñu xel ak suñu xalaat ci yéene Seex Mustafaa jooju nan la ñuy def ba loolu ñu mag ca ñu man caa ba loolu moo waral parrainage ba fii nuy wax nii rafet nañ ci njort ndax suñu mbokk yi toog Amérique maa ngi siyaare sëñ Sadex Amar soxna Jaara Fay soxna May ñooñu ñëpp damay xam xamante na ma ak ñoom ñuy liggéey liggéey yu am solo ci ci maam Jaara ak euh, fédération yi ko wër yëpp France yëpp soxna Caara Mbóoj ñu ngi koy siyaar ndax yooyu yëpp ci dawale xalaat lan lan bëgg-bëggu Cheikh safaa ndax fii ñuy wax nii projet bi mujj taxaw nii projet dortoir bi ci yokk xalaat yooyu la li tax seex mu safaa bëgg euh, liggéey bi egg fa ko sëñ Moustapha safaa woon kon soxna jaara li ci ëpp gi solo ci ci liggéey bi mooy daayira yi daayira bu ci nekk nga soññ sa mbooloo ñu gën a wuy si fédération daayira bi ndax réew mu ci nekk ni ko sëñ bee leeroon waa ko sëñ Bàkki Madina yi dëkk bu ci nekk am na dayre daayira boobu mi ngi ci biir dayre Seexul Xadim di fa liggéeyal daayira sëñ tubaab yi jàppale daayira Maam Jaara bi góor ñi jàppale daa jàppale soxna yi waaye nag soxna yi ñoom ñu xam ne tam seen Maam Jaara mooy mooy seen péete Seex Musaa daa na soxna yi liggéey Maam Jaara yéen seenub liggéey la lu ci góor ñi def dañ leen ko jàppale waaye daara daara ju yor dund 18 millions par mois te bu ñu waxee loolu 18 millions dañ leen koy tënkal rek nekkul loo xam ne tamit dañ naan la 18 millions yi moo yor daara jëpp daara ji dafa am yeneen frais yu ne ci biir yoo xam ne ndax ko xam dañ ko war di fóotal di ko war di lett am ñu fa nekk ci biir daara ji seen i pâte dentifrice seen yeneen ak yeneen yeneen yu bare bare yoo xam ne daara ji mu ko yor kon ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ bi ci taxawu liggéey boobu la cay dëgg dëgg dëgg mooy ñu fexe ba daayira yépp képp ku bokkagul ci fédération bi te nekk ci réew ma nga ñëw wuy si daayira maam jaara bi ko sëñ bi leerale ñu ñëwee laaj na ndax daayira maam jaara am na fi ñu ne amu fi ñu fexe ba nga bokk muy benn fexe ba nga wuy si mbooloo mi ngeen ànd ñu yëkkateendoo di tegandoo yaakaar naa fi ñu ko ni loolu ku xool ni ni ni li liggéey bi mel ànd moo ko waral ak mbootaayu maam jaara am fi fondation daayira soxna jaara fédération daayira maam jaara boo demee ci daara ji fi nii da naan waa Amérique ñëw nañ fi def nañ fi benn euh, centre ah léegi nga dikk ne indi nañ fi lii ñii indi nañ fi loolu li koy waral mooy mbooloo su mbooloo mi maanaam àndee rek li li li li bëgg-bëggu daara ji tey yomb kon loolu rek lañ ci doon gën gën a soññee ndax si Isaax bi mu ñëwee génn xalaatu prénance wax ko ci Espagne sëñ Xaadim Gay jànkat moo ko njëkk a dégg ci biir jataay bi ci la ma woo na ma sëñ Asan benn xalaat bu mag juddu na fi sëñ Isaaxa de mi ngi génn xalaat boo xam ne cey boobu jàllee ma ne ko ban xalaat la mu ne ma daal xalaat boobu mooy dundub daara ji ma ne ko dundub daara ji nu muy demee mu ne ma dundub daara ji mooy daayira maam jaara bu ci ne mën a yor benn maam jaara yor dundam mu ne loolu day buñ ko defee kon heure bi sax damay wax ne 3000 daayira ma nga ci 3 3000 maam jaara waaw kon xam naa soxna jaara moom damay kii rek waaw dama moo toppee day xaw jërëjëf sëñ <laughs> euh, kon euh, sëñ Modou Niang bu fédération maam jaara bu Serigne Mbacké Madina dañu bëggoon a xam seen taxawaay par rapport ak euh, parenage bi waaw soxna si jërëjëf sëñ Assane li mu doon leeral am na solo lool wàllu parrainage yi moom ñun ñu ngi ciy yëngu mais bëreegul bëreegul noonu ndax comme fii ci réew mi la nii ñu ci bëri ci daayira yi maam jaare yi te ñun comme ni ñu koy liggéeyee ñu ci bëri carte yi moo leen di gën a euh, moom lañuy ñuy gën a jox yitte. waaye am na it ci biir ñoo xam ne nii ñenn nag ñoo xam ne ni ñoom commencé nañ ndax lu mu néew néew néew fédération bu nekk am nañ fa ñeent ba juróomi nit ñoo xam ne ñoom ñu ngi def parrainage bi parrainage bi ni mu ko waxee lu am solo la waaye lu mat a liggéey la tam liggéey la laaj waaw dañ ko war a yaatal bu baax ndax damay wax comme niko Cheikh Moussa dan waxe rek jari imam jaare yi ñi ñoo ci wara japp surtout ndaw ñi di di am cawarte di dem ci ñi nga xamne ndax liggey bi kat dañ ci wara taxaw taxaway bo xamne daño wara soñ nit ñi dimbali leen ngir ñu xamne seen ñak yooyu ñuy def ci soxna jaara du doon ñak wo xamne wuy niil la lu leen di jëriñ la tey ak ëllëg kon loolu ña ca war a taxaw mooy ñun ndaw ñi nga xam ne da yàlla daf ñoo nattoo nuy ànd ak daayira na jaara yi noo war a takktoo di dugg ci biir dëkk bi di dugg ci biir réew mi di seet ñi nga xam ne war nañoo mën a parrainer ñu wax leen ko leeral leen ko bu ko defee danañ ci danañ ci mën a am liggéey bu am solo danañ ci def liggéey bu am solo ndax parrainage bi wax dëgg yàlla xalaat la boo xam ne macha allah ndax euh, njaboot gi moom muy njabootu sëriñ Basiiru gi daf ci am ñoo xam ne yàlla daf leen may may goo xam ne lépp luñ def rek buñ demee ba gis ko rek dañ naan lii mën wartoon a mën a ñàkk ndax boo xoolee carte maam jaare wii di wecceeku 2000 bi ko sëriñ Moustapha Basiiru defee ñépp ci dëppoo ne lii waratoon mun a ñàkk te ba ilaa mu musama kenn kenn mënul toog ren ba déwén munoo dajale ñeenti téeméer woo mën a weccee koo carte maam jaara loolu munul am yàlla kenn xañeewul kenn noonu aw wërsëgam waxuma laa nag nga doon borom wërsëg woo xam ne sunu borom dafa la ko dénk nga war ci mën a liggéeyal sunu borom waaye man ci liggéeyal Serigne tubaa jaarale ko ci soxna jaara di jël benn maam jaara di ko def di ko defal parrainage bis bu set téeméer wala weeru ñetti junni loolu am na ñoo xam ne tëwuñ leen la nekk kay mooy dañoo jotul dëgg dëgg dëgg dëgg information bi ndax àdduna li ci gën a am solo mooy information kon lii ñu def nii tey lu am solo la lii lu am solo la lu ñu war a wéel la ñi ko organisé sañu ma leen di wax diggal leen waaye am naa xalaat boo xam ne ni yaakaar naa ne lii at mu jot war nañ ko gën a mën a yaatal ba nga xam ne président fédération bu ne war na mën a ñëw teew fii wala bu fekkee ne mate ne ko président daayira bu nekk mën a ñëw toog fii ñu def bis boo xam ne wala jox ko heure boo xam ne nii ku ci nekk dana ñëw jotal wax fii sa xalaat muy loo xam ne nii muy xam ne nii bu ñu fi jógee ku nekk dana am information bu leer ci li ngay liggéeyal soxna jaara xam ne lii lu ñuy def lu ko mate la ndax li lu am solo la lu ama am solo la man li daf ma bet lol ndax dama jek jek rek nu ma ne lol, fi ñew mais li luñ wara gëna mëna yaatal la ta warna mëna gëna yaat warna mana mëna yaat ndax man japp na ne sax nañu dem ba diko ko def bis bo xam sax diko ko fi ci programme bis bo sax du day ak bisu magal gi nga xam dañ fi wo daayira yépp wala président fédération yooyu yépp ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew man fee ñëw nuy waxtaanee gën a waxtaanee liggéeyu soxna jaara bi kon ñu wàccee suñu kàddu rek di santaat bu baax ñi nga xam ne ñoo def lii di ñaanal Serigne ma Madina mi nga xam ne moo ñu jiite ci fédération bi yàlla defal ko mébétam ci li muy liggéeyal soxna jaara mu liggéey ci lu koy njortam ak mbooleem ñi mu seqal sëriñ tubaa ci barkeeb soxna jaara jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Modou. kon xam naa ne temps bi daf ñëw tënk lool sax euh, ñu bàyyi leen ngeen tàggatoo kon euh, soxna Momy bismillah ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, ak mbooloo mi. waaw soxna si jërëjëf bala maa tàggatoo ma jéggul bu baax di siyaal seen Saaliw Mbàkke mais ndax moom tam démb ko ci sonn la ndax bi ma ñëw ci yoon bi yëpp ñu nekkee naawel yëpp mi ngi fu ñu toll ak kañ lañuy ñuy egsi dañu sol sëñ bi ñu ngi leen siyaar bu baax Mbàkke di fas di gën a fas na kóllëre gi di leen siyaar bu baax di wax ne poste santé boobu sëñ bi tudd léegi waroon naa koo jiital ndax soxna Jobe bañ koy def soxna Jobe moo yoroon di bind booba euh, poste santé bi waa Amérique tabax fi te yaakaar naa xaas bari lañ ci def ba sëñ Muntaxa ci boppam moo jóg ñëw ubbil ñu ko euh, kon sol sant yàlla la muy ñun waa Amérique ñu def ko fi te am na fi tam leneen loo xam ne seer nañ ko te lépp ci fédéral bi la te bu buñ ko fi defee te bu ñu egsee da nga xam ne egg nañ bu soobee yàlla ci loolu la ñu nekk fu ñu nekk daal suñu xel ak suñu xalaat miñ ci nu paraxaan gën a jëmee kanam ak nu soxna yi eh, doo eh, eh, turandoo soxna jaare yi gën a mën a jànge gën a jëm ca kanam ak ñi leen yore di gën a ñaan si mu taxaa Basiir mu yàgg fi lool nag Mbàkke te wér di ñaanal sëñ Isaaxa tamit liggéey bi nga xamante ne moom la sasoo te woon ci tey jii yàlla na ko gën a yàgg jiite te yàlla gën koo may wér ba mu yàgg suñu kan barke Sëriñ Tuubaa soxna si tam ñu lay siyaar bu baax a baax soxna Jobbe ñu leen siyaar bu baax di kontaan ci assise bi nga def ndax ñu war a ñëw bari nañu waaye ñu ngi ci yoon bi li soxna si wax léegi kenn xam nga maanaam bis bi ni ñu ko defale bis bi tey ñu bari dañuy départ ñun ñu teel a ñëw ñu fi mën a egsi di siyaar soxna jaar seen mi tudd soxna jaar moom tam bu baax a baax ak seen ma ànd maa leen siyaar di siyaar mbooloo mi yëpp di siyaar rek waa daayira maam jaara ndax nekkuma fa waaye mel na ni maa nga fa ña nga ca liggéey ba soxna Fama Gueye mu topp ci man moo nekk yore mbooloo ma ña ngay liggéey bu baax jàpp te ña ngay laaj àddiyee ña ngay jaay carnet ya kon sant yàlla bu baax soxna si ñu ngi jéggul bu baax bu ëllëgee ñu gën koo yaatal bu soobee maa ngi jéggul bu baax a baax sant sëriñ Touba bu baax jërëjëf soxna Diarra Bousso. Euh, kon sëñ Modou Niang ñu bàyyi la nga tàggatoo. kon liñ ciy dolli rek ci tàggatoo bi euh, maanaam jaajëfal tam waa presse bi nga xam ne ñu ngi taxaw nga xam ne tey jii mën naa ne ñëpp ñu ngi poroxaan sëñ Cheikh Mountakha day wax ne benn liggéey gënt a kawe lu yaatal ab liggéey liggéey Cheikhul Khadim kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di. dollewaat cant rek waa Espagne fédération daayira soxna jaara Espagne suñ coordinateur ne ci bopp bi soxna sëñ Basiiru Diop di soñ sama bopp di soññi képp koo xam yaa ngi Espagne nga ñëw bokkaat ci daayira bi ndax day ndigal ci ñun sëñ sëñ Isaaxa daf ñu jox ndigal nañ ne ñëpp bokk ci fédération bi ñu tënku ci daayira maam jaara yi ndax loolu suñ ko defee mooy yaatal liggéey bi wàllu tëj gi tamit ma dolli ci tuuti aw ñaraas rek ab soññe bu jëm ci daayira yi biir réew ak bitim réew diaspora bi prénance bii nga xam moo jëm ci dunduk daara ji muy fii ci réew mi nga xam ne moom boo doon natt da nga naan fi liggéey bi ëppee 3000 daayira maam jaara bu koy wax biir réew mee cëpp sëñ bi leeral na ko bépp daayira bu mën a jël am maam jaara weer wi ñetti junni la mbooloo buñ ñu matee juróom fukki junni buñ ñu sànkoot ay baay sax ñuy laaj addi yi soxna jaara lu jëm ca daare ba balaa weer wee jot danañ am benn maam jaara boole ko carte wi nga xam mooy baasu daara ji kart yi moom Cheikh Moussa daf ne woon carte wii ku ci wecc ku wenn carte mooy sa seede yowmal xiyam sa diggante soxna jaara ba loolu kenn ku ne xam ne ne ku am ab liir sax mu gën a jamono la ngay njëkk a def mooy bind ko ca daayira maam jaara ba kon nag ñoo ngi soññ képp koo xam ne yaa ngi bitim réew kàdduy sëriñ bi li jëm ci ndey daara muy dunduk daara ji ku mën a jël am maam jaara nga jël am maam jaara weer wi ñetti junni la bu ñu ko defee incha allah li ñu yéene yi dana ci am gàttandum soxna jaara yàlla nañ ko teewee nag ay déwéni déwén di siyaare waa diaspora yépp Assane Diop Muxaddamatul Xidma maa ngi siyaare ñëpp képp kuy eh, jullit di taalibe rek ñu ngi lay fasaaleel yàlla nañ ci dajeeg barke waqda waay jëlle si na daamoo fi xidmati waab lahum maaraamoo inna lisina saaraho li xidmati falaw mu diyaara wasal jannati jere ngeen jeufati waaw no ngi sant bu baax euh, di sant yalla bu baax ndax lu melni wax deug yalla ku yalla taw fexele nga bok ci di ci am lo ci yëngatu mu melni da nga ci don dara da nga ci wara sant yalla bu baax ndax am na ño xamne ño la gën fuf bëgg ci liggéey taxay na suñu borom dogalagul ñu dugg ci kon no ngi sante ñiñ fi dajeen ñep muy wa Amérique yi ak uh, wa Espagne yi ndax suma joomul at yee passé ñom amna na benn projet dortoir buñ buñ doon tabax fi ci uh, daara ja uh, yaakaar naa ñom mason na tassé taseeg ñoom lampe Fall ñu doon fa lu melni wa France soxna tiara Mbodj waaw wa soxna tiara Mbodj ñom ñoo taxawal procès dortoir ngir yok dekk way ànd ko soxna maam jaara Mbàkke mu Cheikh Modou Mountakha kenn ku ne xam ne taxawaayam ci liggéey bi liggéey boobu itam na ko ñépp xam ñu xam ne sëñ bi fas na yéenee mottali yéeney Cheikh Moustapha junniy maam jaara ak nangam nekk ca daara ja loolu nag la ko sabab mooy faw dëkkuwaay yokk bu dëkkuwaay yokkoo dukk dund bi jàppandi kon la ca sëñ bi yéene woon danañ ko am waaw Espagne moom dañ caa sóobu nag waaw jërëjëf moom it di ko ñaanal yàlla euh, guddal fanam te may ko wér ba lii nga xam ne euh, ci la nekk muy liggéeyal maamam bi mu am ci lu koy njortoom te nu ànd ko moom ndax wax dëgg yàlla nii rek la tàmbali moom nii rek la nan ci ne rek ñun amuñ lu dul soxna jaara amuñ lu dul moom te soxna jaara nag euh, dafa weesu nu koy waxtaanee ndax dafa nekk ci ginnaaw sunu yaakaar muy Cheikhul Khadim mbir nag bu nekkee ci sa ginnaaw yaakaar yaakaar naa ne waxtaan woo dafa war a gàtt te barkeelu ba gudd soxna jaara dees ko war a barkeloo waaye doonul ku ñuy tàntal rek di waxtaane waxtaane ëpp na ci ñun ëpp na yor na fiy goro yor na fiy sët yor na fiy sët sëtaat ku ci nekk boo ko jegee rek da nga am jikko yu baax waaye soxna si doonul ku nuy roy ku nuy barkeloo la kon noo ngi ñaanal ñépp jàmm di sàkku ci ñeen ñaanal ñu jàmm di ñaan yàlla déwén ci heure bi ñu ñu dajeewaat fii te gën ko yaatal nag comme ni ma ko sàkkoo ñu gën ko yaatal bu nga xam ne lii ñun suñu liggéey la ndax yàlla dogal na man fii laa amee shahadati ya béréb bii ñu nekk nii école al azhar baa ngi nii fii laa dalee alifun ba am shahadatu ibtidaaiya sëñ Moussa Bari boole ma ak sëñ Mbàkke yóbbu ñu mbooro man kon man li may wax am na loo xam ne xam naa ko bi bi ñuy def examen dañ daan dem ci barab bi di laal li laal li mbàjj mi di raay suñu kanam ñëw doog a def ixtibaar kon ñun liggéeyal soxna jaara moo nu war bu nu bu nu toogee nag jàkkar leen ñi di ko def dañ ciy am mbégte mën nañ ciy wax fii ba suba ndax bu ñu ci duggee dañuy mel ni ku doppeewu soxna jaar rek lañ am mooy tey mooy ëllëg wa rahmatullah taalaa wa barakaatu jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ bi kon. Euh, ah, waaw sëñ soxna si bu baax ndax sëñ Basiru Fall ma yore daayira euh, soxna jaar sëñ Basiru bu foofa. moo jiit suñu kanam di ko mag ñu ngi koy siyaar baax ak soxna Xadi Faal soxnaam ndax këram dañuy daayiraa di siyaar bu baax a baax soxna Ndey Sàll mi nga xamante ne mooy def weer bu dee mu taxaw laaj maam jaare yi te bu fekkente ne nit ñi joxewuñu ku mel ni man wala keneen bu tardé mu jël defal la ci ba nga pare soog koo delloo te soo ko joxee da ko cay defaat kon ñu ngi koy sant di sant tamit soxna Xadi Gay jiili bàyyi Saalu soxna jaara loolu mën na la buy nees buy taw mu jóg bu ñu amee doole ñun waa New York rek Amérique sax laay wax soxna Xadi Gey jiili bàyyi Fall soxna Dia moo ñu may doole di siyaatam soxna Astou Ndaw bu baax fédéral président fédéral ñu koy siyaar bu baax ramoon tam sonn na trop dem ba léegi mi ngi ñuy woo maa ngi siyaar ñëpp soxna Jobbe maa ngi siyaar ñëpp daal waaw ndax lépp mënoo koo lim daal ndax ñëpp a sonn waaye nag dafa am ñoo xam ne mënoo leen a ñàkk a tudd maa ngi siyaare par parole di siyaare Baye Fall laxasaay ak ñëpp bàyyu mag kenn jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf soxna Momy kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yéen i tamit ci teewaay bi ak yitte ji ngeen def ci fondation bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant bu baax kon mbokk yi ñu koy ñu tëjee plateau bi noonu di dolli di sant bu baax suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Mountakha Bachir di ñaan yàlla mu bàyyil ñu ko ci suñu kanam ñu ànd ak moom liggéey bi ñu def ko ay ati ati ati ati barke Cheikhul Khadim ngeen jëf bu ñu jagleel màggalu poroxaan del siwaat si ay conférence ay plateau bi su jàng alxuraan waaye tamit ay documentaire ngir gën a xamle li nga xam ni moo di doon def son as xadim ak euh, waa fondation Mame Diarra états ak Espagne ak waa xidmatu sant bu baax ak ñi leen fi teewal xam naa euh, dañuy def benn pause bu ndaw rek julli ak waajal xéewal bu ko defee ñu wëyal liggéey bi incha allah bu 4 jotee incha allah xam naa ko dañuy def pause rek julli ak waajal xéewal